salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu leen nuyu di leen di leen siyaar di xool naka ngeen def euh, ñun la seen mbokk Malick Fofana ñoo ñoo ñoo ñëwaat ñoo ñoo ñëwaat daje ak yéen ci jotaay wi nga xam ne moo di jotaayu waxtaan jotaayu waxtaan ñu nekk ci bunt boo xam ne ñu ngi ko tuddee taxaw seetlu bunt bii taxaw seetlu nga ngeen gis ne ñu ngi ci euh, ñu ngi ci ànd ak jot Jotna TV te ngeen ngeen gis ne euh, bunt bii xam ne ñu ci nekk xam nañ ci yàgg tuuti taxaw seetlu waaye ragal naa ragal naa ñu ñu ñu ñu xaw cee yàgg tuuti ndaxte yi xew ci penc mi dafa dafa doy te euh, bu ñu ñëwee fii di wax waxtaan ak yéen ci wàllum xam-xam boobu amul lenn lu ko tax a jug lu dul ñu koy jafe. yenn saa yi nga bëgg a wax ci lii xew ci penc mi waaye nga gis ne euh, fooy taxaw sax ngir wax doo ko doo ko am ndaxte yëf yi dafa dafa jégg dayoo dafa doy waar. te ni yëf yi doy noonu la taxawaayu ñenn ñi doywaar ci ci ci loolu. yenn saa yi doo bëgg wax ndaxte. Euh, yenn say ngawah, nga wax say wax ñuy euh, la ngawah nga wax nga wax ba paré gis né kat li ma wax ni mengawul ak li ne sama xol li ne sama xol mo gëna metti waaye sama wax ci daf daf mo ñuy yoy yenn say dina tax nit nopi ne du du bëgg wax yenn say nit ne du bëgg wax ndax té euh, li nga bëggon wax yépp wax nga ko mu melni ni lañu toll ba nga xamné sax boy wax wax ji xaw bari sax amna ño xamné mën nañ la jëppi waye li xew ci ci dëkk bi dafa doy war dafa doy war dafa doy war dafa dafa yéme doy war dafa yéme kenn xamul sax foo koy natt te bu fekkente ne manam ñuy def dara ko xamné ne daf lu jubu ku melni parti passé ku ñuy def dara ko ko xamné ne daf la jubuwul wala ño xamné ne lu jubu lu xex warul tax ñuy xexé ñu leen nexé ndax té loolu limuy jur kenn xamuko li mu jur kenn xamu ko xeex bi ñu jël doom doomu aadama di ko naqaral nga foog ne doomu aadama boobu lañ koy def déedéet kenn defu ko kooku yow yow yow lañ koy def ma jox lañ misaal xam nga euh, yàlla ci ci alxuraan daf ne euh, boo fàttee bakkanu nit boo fàttee bakkanu nit te tegloo ko ci yoon dafa mel ni àdduna euh, bi yëpp nga fàtt ndaxte saa soo fàttee bakkanu nit yaa ngi wane ne faat nit ndekete ñun ñoo ko réyal waaye yomb na saa soo uh, uh, nit ku nekk ci ay jafe-jafe nga nga génne ko ci xettali ko alxuraan ne dafa mel ni danga danga da nga nit ñëpp ndaxte nit ku am jafe-jafe nga ñëw taxawoo ko mi yaa ngi wane ne jafe-jafe lu metti métti nga def ko yomb na nit moo ko disa waaye diisu loolu fi xew beneen misaal bu ma leen mën a jox gis nga xam nga uh, fii nii ci réew yi réew tugal am na loo xam ne yoon dafa ne lii li li awra la am loo xam ne mu ne du du awra bokkul ak diine bés buñ gisee nit muy dox ci mbedd mi wu ñu awraam muy dox ci mbedd mi di ko wane yoon daf lay jàpp am la ay daan yu mu la teg bu ko defee nit ki naan waa man sama li ma wane man man naa ko moom lu tax ñu ma ci jàpp ndaxte li li nga moom boo boo ko wonee la sa morom dina bu ngay wone am na loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk am na loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko am na xeex jarul yenn yi lu mu xeex xeex xeex lu mu metti métti am na yoo xam ne nañ koy def waaye bu buñ fexee ba wàcc yenn sart yi rek bu kenn jàpp ne parti bii lañuy ñuy bënn man ma toog di xoolee déedéet am na foo xam ne fu ñu ko ko laalee doomu aadama ci boppam lañ daal akam ak ak yelleefam te bu ñu ko defee rek mooy buñ ca jógee ndegam yoon amatul sart amatul mën na dal ku nekk loolu loolu nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi xel am na foo xam ne bu ma demee yëf yëf yi dafay ëpp boo seet boo setaanee ku ñu toroxal rek sa bopp ngay seetaan loolu ñun ñëpp nañ ci jóg nañ ci jóg nañ ci góor góorlu ndaxte lii fi nekk rek li fi li fi nekk dafa doy waar ba nga xam ne kenn mënu ko natt am na loo xam ne àdduna jaru ko booy xool rek ñuy wax euh, mbirum vaar nit ñi ñëw wax ñu ne ñu ñu vaar ko andi andi li mu waxatoon loolu mën na am lu bari lu mu sopp ci ci penc mi waaye euh, ñun de bu ñu gisee nit ku ñu vaar nga wax dara ñett ay at ci gannaaw ñu nga wax leneen ñu ñu indil la ko man sama gis-gis yàlla dafa def ak xam naa ñu mel ni ñun dañuy gis yowmal xiyaam vaar yi lu tuuti la niñ koy niñ ko gisee nii ah, euh, foofu de kuñ fa waar dina doy waar de te lépp luñ fi lu lu nit mën rek yàlla yàlla moo ko ko dàq te itam ah, li nga xam ne itam bëgg naa ko wax mooy tey jii de Afrique dañoo seetlu ne fi fi ñu nekk mënuñu fa génn lu tax mënuñu fa génn ndaxte bu fekkente ne yow da nga boo bëggee jël nguur nguur sax baat boobu bëgguma ko wax ndax day mel ni nguur mooy boo boo boo jëlee kii bi rek boo nekkee ci kaw ndomba tànk bi lu la neex nga def da ngay boobu sax baat boobu waruñu ko di di waxati te day tax nit ñi foog ne euh, ndomba tànk bu bu kawee mooy mooy am am nguur mooy njoowaan nekkul njoowaan ku bëgg réew mi dinañ la bund xeex la dóor la sonal la ba nga xam ne yow bu yàlla defee ba nga mucc yow danga naan ah léegi nag damay noppalu sama coono jeex na te loolu warul nekk. dañu waroon defu ko képp koo xam ne da nga da nga bëgg a jël nguur gi ñu yombal ko tegal ay yoon ay sars mu leex ñu ñu bañ a bund xatal kenn bu nga xam ne boo jàllee xayrun boo jàllul ñu xam ne noonu la. léegi boo ñëwee nga xam ne foofu nag la xeex di tàmbali waaye ñu ñu ngeen di xeex xeex bu tar ngir rek ngir rek nga ne dama bëgg a jël nguur gi boo ko defee boo yeggee. bu bu sax sa ya, bop noyé da nga naan léegi damay noppalu ndax xex bi jeex na te te bi fofu la commencé loolu dañ ko wara moytu lu lu ko may duñu dem fenn ñaareelu mooy li ñu seetlu moy Afrique wala Sénégal képp ku fi bëgg ne da nga bëgg jubanti réew mi da nga bëgg am nombre tank li gëna kawé dinañu la xex dinañu la xex xex la ba nga xamné so watul ñu jël sa bakkan so watul dañu jël sa bakkan ben yoon wala soo watuwul dinañ la wol ba nga mokk dinañ la dóor ba nga xam ne ah sa sa bëgg-bëgg bi nga bëggoon maanaam ne ci kanam am na ma tànk mbëgg bopp da nga koy bàyyi maanaam sa sa bëgg-bëgg la dindi benn yoon mu jeex. loolu bu fekkente ne nag mucc nga ci ñaar yooyu ba yàlla def nga jël nguur gi dina sonal nañ la pamti pamte nañ la. ba nga xam ne. boo ñëwee sa yaram dootul neex euh, xel ak xalaat ak bëgg-bëgg yu rëy ya nga amoon dootoo ko amati bu ko defee da ngay ñëw rek di ñot ñotal xam nga loo xam ne da lu ñàkk fayda la ndaxte ndaxte sa li nga doon gént dañ dañ ko dindi ci yow loolu bu amul beneen bi mooy am beneen bi mooy sonal nañ la façon sonal façon tal ba nga xam ne yow boo ñëwee da ngay nekk koo xam ne da ngay amul lenn loo bëgg lu dul fayantu fayantu képp koo xam ne daf la mës a def lu bon nga fayantu ak moom kon ñent yooyu rek moo fi nekk loolu nag loolu dafa war a takk àdduna àdduna mënul mënul demee noonu loolu baaxul ci ñi bëgg a jiitu baaxul ci ñi ñi ne ci gannaaw man damay jaaxle su ma gisee nit toog di di xoole gis lii xew mu toog di xoole mel ni dafa am lu muy xaar ndekete ndekete boppam lay seetaan euh, am na benn boroom xam-xam bu ñuy woowee Martin Luther King nga xam ne labbe la te da da doon xeex xeex bu metti ci États-Unis ci ñu ñuul ñi bañ leen doon xoqtal xoqtal yi gën a metti mu ne am na yoo xam ne bu bu ñëwee faw ñëpp jóg te ku ne ci ci anam ya nga ko mën na ko def mu ne if you fly run bu ngeen mënul naaw daw leen if you can't run walk bu ngeen mënul daw dox leen if you boo dee mënu leen dox ngeen sëpp seeni om ak seeni loxo di raam but by any means keep waaye lu mën ci xew na ku ne am lu mu na ku ne yëngu te ay nit bu ñu àndee nit bu ñu àndee bu mu bëggee li ñuy ànd mu am barke waxuñu rek ñu ànd waaye dañu war a booloo xol yi dafa war a booloo maam Abdou Aziz da ko doon wax nañu tàppe xol yi xol yi dafa dafa war a booloo ndaxte bu fekkente ne xol yi ba booloowul yàlla mi ngi naan ñu nañ ko moytu yaxsubuhum jami'an wa qulubuhum shatta nan eh, nañoo and de ngeen fokk na ñoo ñoo and way seen xol yi nekk fa yi bu amé ni di di dafa bax day gëna a dëgëral day tax day tax bu ñu day tax xol yi and ba nga xamné buñu bu bu yalla défé buñu jël nguur gi ndaxte yàlla nee na bu bu dé bu dé gëna and té bolo booloowu leen wala seen xol booloowul lu ngeen yëkkati ma rocc ci barké bi bu ngeen bëggoon bu ngeen bëggé liggéey fukk benn ngeen di mën te loolu bu amee ah, maanaam mm, disons yaakaar bu bu tas la bu rëy boo ndaxte kenn réewul ne ne jamono ji ah, xale yi am nañ loolu yaakaar ci li mën a xew ëllëg fi ñuy jeexale mooy ñu ngi ci weeru koor gi weeru koor gi di ñaan borom bi mu jàppale ñu ci lépp loo xam ne ñu ngi koy jéem koor nekkul rek bàyyi lekk ak naan koor raw na loolu jikko yi lay defar yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko tuddee leen nettoyeur mooy ko ko xam ne dafay nettoyer koo xam ne dafay raxas te koor gi lépp loo xam ne def nañ ko fi yàlla nañu yàlla may bu koor gi weesoo ñu ñuy wéyandi di ko def ndaxte loolu moo ko tax a jóg loolu la ko tax a jóg ah, li ñu fi doon wax yëpp nag dañ doon ah, yedd suñu bopp rek dañ doon yedd suñu bopp di ko def fii ci seen kanam ndax seenub seede ndax seenub ah, seede nekk son ci bu amee loo xam ne nit euh, boo amee xam ne dëng na ci nañ ñu ñu ngi ciy jégalu bu amee loo xam ne jub na ci it nañ ko sante borom bi nañ ko sante borom bi ah, di leen nuy di leen siyaar euh, ba ñu gisee ba yàlla may ñu taw feex ak suusoo ba ñu gisante beneen yoon asalaamaaleykum